Ousmane Sonko euh, non état moom parewul reculer loolu nag moo tax itam ñu war a comprendre le comportement de Ousmane Sonko parce que un état lan mooy état les gens tout le temps may dégg ñuy wax république état gouvernement là il faut pas qu'on dañuy jaawale les choses là c'est pas l'état c'est qui là c'est le gouvernement politique de Macky Sall a une volonté politique et qui utilise l'État pour, pour, pour réprimer de l'opposant. C'est ça qui est malhonnête. Police, la gendarmerie, les FDS, la justice. Ils euh, obéissent au gouvernement. Oui, mais et non. Ils obéissent au gouvernement. Parce que xam nga ah nag ñun suñu dëkk bi dañuy jaawale ñaar. xam nga l'État donc la la justice. les FDS dañuy obéir aux injonctions du gouvernement politique. du gouvernement de Macky sal ok de ses donc ce sont de des de ses ministres. donc la justice n'est pas libre. mais loolu loolu c'est pas moi qui le dis les justice les les les acteurs de la justice seen bopp wax nañ ko qui qui plus adapté qu'un qu'un magistrat qui plus adapté qu'un juge ñi nekk ci biir ñoo mun a génn ne justice bi indépendantul ñun suñ ko waxee ñu bëgg ñu wax leneen mais on ne fait que les mots qui ont été par les acteurs du métier yow boo toogee tey ne la presse nii kan moo ko mën a weddi hmm. xanaa ko am fit parce que ci nga bokk boo defee euh, euh, jàngat bi ba xool ko ba tax nga génn ca bàyyi kon yow ça veut dire que xam nga ki fi ñaata juge ñoo ko fi wax fi ma bëgg ñëw mooy su fekkente ne da nga nekk ci état boo xam ni euh, dafa am benn gouvernement bu ñëw di jël li ñëpp bokk mooy li nga wax léegi la justice la gendarmerie la police les corps d'état di ko utiliser pour rester au pouvoir quel autre euh, argument nga mën a am lu dul résistance wax nga sànq les avocats de l'État dañu def conférence de presse ñu wax ci li fi yàqu lépp ñu koy naqarlu ñu euh, ne dañ koy lal ci ndodd Ousmane Sonko mais xam nga lan la ñuy fàtte wax ñoom valeur bi gën a am importance ci état xam nga mooy lan mooy bakkanu doomu aadama yi mooy sénégalais yi parce que sans sénégalais y d'état sans citoyen sénégalais il y a pas d'État sénégalais il y a même pas de république il y a rien parce que un État ne peut pas se construire comme ça dans le néant un État se construit autour d'une nation autour d'un peuple qu'est-ce qu'ils font de ces morts tu penses que le BRT est plus important que la vie d'un jeune homme qui est tué comme ça par balle tu penses que des biens publics même Auchan même des milliards c'est plus important que, que, que des jeunes fauchés comme à la à fleur de l'âge et sans enquête. rien ne doit. sans enquête rien... avec des milices au vu de tout le monde. Ouais, filmé sauf que dans les. pourquoi chefs... l'État ne fait pas de de de d'éclaircissement ci loolu. dans les l'État chefs... du Sénégal nous parle de bien matériels alors que les biens symboliques yi tax moom mu exister ba ñu jox ko pouvoir pour mu nekk suñu kaw loolu moom amul importance. waaw euh, le procureur dans sa communication dañ ne. c'est les appels incessants à la violence de Ousmane Sonko moom moo indi situation bi parce que à chaque fois qu'il a pris la parole ou fait une déclaration ou à chaque fois qu'il devait se rendre un procès et appeler à la mobilisation il y a eu des événements tragiques des Sénégalais en son morts et puis des biens publics et privés ont été détruits ñoom loolu lañ noonu lañ ko gisee mun nañ ko gisee noonu de parce que ñoom li ñu bëgg def rek la ñuy def wax nga ko léegi ci cas Karim Wade def nañ ko ci kaa xalifa def nañ ko ci cas yëpp lépp lu ñu bëgg jox euh, justificatif dinañ ko broder ah su ci justice ci ay ci ay chef d'inculpation yu nga xam ne ñoom seen bopp sax ñooy dem après ba génnaat ci te egg dañuy dem ba quand même jusqu'au bout te dara du leen ci fekk mais jàpp naa ni amul xel mu mën a nangu nga ne deux mille vingt et dafa am sénégalais bu yëkkati ay kaddu yoo xam ni quatorze personnes dañu dee nga bàyyi ko mu dem këram di lekk di naan di dox ay activité am ba jot fi sax dem fi élection locale ba jot fi nekk maire ay sénégalais voteel ko te jàppoo ko te nga ne woom boobu moo tax dee bi am. xëy na waroon nañ ko jàppale pop. non mais je dis bu fekkee loolu. amoon na kay si avaient considéré. bu fekkee loolu amoon na état bi warul woon. subir benn pression dafa waroon jàpp c'est pour ça que je dis persécution la parce qu'en réalité c'est crescendo. parce que boobu am na leneen ci lu ñu téye woon lu ñu loo foog ni lu ñu xamante ne jàppoon nañu ni mën nañ ci aboutir ba ñu demee ba ci cëppaandaw ga ñu xam ni loolu jàllul ñu indi beneen dossier bi ñu paree ci dossier boobu ci la mujj fii. mais je pense que quand même ñoom seen bopp war nañu respecter seen bopp parce que état boo xam dafa bëgg ay citoyens am ko te respecté ay loi am te te te te te nangu ndogal warta taxaw procureur boobu taxaw di yëkkati ay kàddu naan damay teg ay film depuis trois ans waa ji mu ngi def rek sénégalais ngi lakk sénégalais ngi dee mais moom la rek mais ba tey moom tey laa la laa leen ko décidé jàppal kon moom il est complice parce que moom mënoon na arrêté kon éviter ces morts là su fekkee benn appel Ousmane Sonko mën na tax ay sénégalais dee pourquoi au lendemain de ces appels il a pas été arrêté pour sauver ces vies il faut être sérieux il faut qu'on se respecte aussi loo politique politique quand même wax dafa war a am bon sens. mais mais on ne peut pas venir taxaw ne sénégalais yi Maïmouna Bousso kàddoom yi mu wax man samay kàddu su ma ko waxee fii ci sa télé bi te mu mën a tax fit na am. mais la loi lan mooy force reste à la loi procureur mën na autosaisir jàpp la waxuma la autosaisir mais automatiquement dañ ma war a jàpp xam nga pour lan parce que pour sauver les vies yi ñu wax ne sama kaddu mën na tax vie yooyu mais mais xam nga may mun a mais un procureur ne peut pas quand même attendre trois ans et venir nous sortir ce genre de choses xam nga def